asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 17 août 2020 ñu wax yéen ci yëglikaay sunu lamb la ñuy xëy tey doore ko mu mel ni ki nag yëglikaay bi tey daal ci gëstu Boubacar Niang Ama Baldé tey moom la xëy fësal ci xëtam mu njëkk mu mel ni ki nag ci deew ki nga xam ne moo di Jules Baldé Junior daal mu mel ni ki maanaam nit ña nañ ko cay waxe ay mbiri Ama Baldé ak doxalin ba daal yëglikaay baa xëy tey ñëw wax ci mu mel ni ki tamit ci réseaux sociaux yi daal maanaam mel ni Ama foofa tamit mayuñu ko jàmm ngir mbir mel ni ki noonu yëglikaay bi jàpp na ne sax est-ce que du Pikine gii dañoo wàccu Ama tey andil ñu lu mel ni ki noonu ci gëstoob ki nga xam ne nii moom moo di Boubacar Niang mu mel ni ki nag jamono jooja bu fekkente ne lu mel noonu am na wala ñu koy wax itam daa mel ni kii di Onde le Fou moom mu ngay défendre ki nga xam ne moo di Ama Baldé ci kaw ñi nga xam ne dañuy xëy di dal ci koom ba tey yëglikaay baa xëy ñëw tey andil ñu lu mel ni ki noonu bu ñu continuer ci sunu làmb dañuy dem fa nga xam ne sorul Pikine di Géejawaay mu mel ni ki foofa moom écrit wàllo la yëglikaay bi xëy tey dugg andil ñu seen bilan mel ni ki nag écrit boobu moom soo bëggee dégg-dëgg daal sept victoire la ñu def cinq défaites mu mel ni ki nag yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci Lac de Guiers numéro ma nga xam ne nii moo na ca bopp ba yëglikaay bi ñëw na ci moom ak na nga xam ne ratee na ko motloo yëglikaay baa xëy ñëw wax nu lool ak ki nga xam ne mooy Abdou Diouf moom encaissé na avance su Gris 2 waaye nag mujj ko bëre maanaam daal daa mujj toog xaar ki nga xam ne moom moo di Alioune Seydo tamit xar kanam ba mu wane daal daa mel ni xar kanam la boo xam ne daal bu doye door waaye la ba wala boo xam ne kenn xaaru koon ko ci moom ci diggante mag ka nga xam ne moo di ñàkk jariñu yëglikaay baa xëy ñëw wax nu ko ki nga xam ne moo di majji majji moom kaw lañ ko dóor maanaam mu daanu ba tey sunu làmb xëy ñëw gëstuñu loolu fa nga xam ne ni moo di ca écrit wàllo ba tey bu ñu continuer ci écrit boobu waaye jamono yooyu loolu lay am nag am na ay xale yoo xam ne moom ñu ngay wane seen bopp moo xam màccal màccal numéro 2 la ak ki nga xam ne mooy caatu wàllo ñoom moom ne nañ ay leet naa lañ yoo xam ne daal ñu ngay jëm a assuré ña nga xam ne ñoo leen seefe ñeneen ñoo xam ne nii ba ca ci écrit booba ñu ngay wane seen bopp bu baax muy ki nga xam ne moo di bàyyi ma njoon bàyyi ma njaay mbaytin siñor bàyyi ma njaay daal ñoom soo bëggee dégg dëgg moom ay yoo xam ne daal di wane seen bopp yëglikaay baa xëy ñëw tey toppal ñu wàllu moom sunu lamb ak seenu bilaa Arouna Sall ma leen di tàggat moom jàpp na ne daal mbir mi lu acceptable la maanaam nekk na loo xam ne daal mënees na caa jàpp loolu daal la a gis waaye doonte daal lu mënta xew daal Arouna jàpp ne loolu moom mënees na caa jàpp ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi nga xam ne sunu lamb ak yi bilaa ya nga xam ne da koy def ak la nga xam ne tamit mooy sunu lamb door ba troisième édition bi ñu jëm daal daa mel ne ay règlement yu bees nar na caa am yëglikaay baa xëy ñëw tey andil ñu lu mel ki noonu ba tey bu ñu continuer ci sunu nga xam ne nii wala combat bi nga xam ne dañ ko fay siiwaloon mu war a dox ci diggante Garga Mbossé ak Sa Thiès te ne waa Leewtoo production ñoo ko doon war a tëgg daal daa mel ni bopp wala ñu déclaré woon na combat ba taxaw na yëglikaay bi xëy na tey séq ak waxtaan staffu Garga Mbossé ñoom nag daa mel ni daal la leen lii woon ak waa Leewtoo production bu dee ay wax yu tënkoon la ñoom ñu wax te encaissé wuñu ne kon waaye ñoom moom loola génn nañ ca loolu la yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb tey xëy xamal ñu ko mu mel ni ki ba bu ñu continuer ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb am na benn xale boo xam ne nii moom mu nga dëkk fa nga xam ne wala mu nekk parcelle moom nag balaa espoir koy wooye waaye moom daal daa mel ni idolam ba daal di móotloo ak royam ak nam koy roye daal la yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw andil ñu ko beneen xale ngi nii bu nekk écrit face ñu koy wax boogaa moom itam daal la mu gis daal mooy jéem a confirmer daal dem ca kaw am yeneen combat ba wane boppam ñetti xale ngi nii yoo xam ne tamit yëglikaay bi xëy na ñëw ci ñoom guy 95 Legs ak Samba Ndeleng numéro 2 mu mel ni ñoom itam ay xale yoo xam ne daal décidé la ñu a def fi mu nekk nii ci seen ay mbir mbay géey mi nga xam ne nag dañ fi doon wax ak wéro bañ na dafa AVC yëglikaay bi ñu sunu lamb ca tuusee ñëw na xamal ñu ne daal gars yi nga xam ne ñoo nekk ci lamb ji gars yi daal dem nañ sécurité ji mbay géey maanaam wallu ji ko donte itam am na ci ñoo xam ne bëgguñu sax a siiw yëglikaay baa xëy ñëw wax nu ko bu ñu demee Leewtoo TV moom lan moo di Balla Diouf Balla nag moom nëbbul ay waxam ci diggante guy gi ak ka nga xam yàlla nee na Sénégal yépp xam nañ ne rëg-rëg moo mën guy gi te moom la mu jàpp daal ne na kii di rëg-rëg daal moo guy gi bokkuñu ci benn côté donte nangu na ne guy gi champion la waaye daa jàpp ne ñaar ñi moom duñu benn bu ñu demee record nag moom kan fay fekk mooy ancien roi des arènes ba muy Eumeu Sène moom nag daa mel ni daal mbër yu mag yi ñuy tudd ay VIP Eumeu aay na ci ñoom lool ay jël yu rëy rëy ku ci ne seet na kook ak yow ci ay tàkku sàmm diggante ma ki nga xam ne moo di Balla Gaye ñaar yoon la ko daan yëglikaay bi ñëwaat ca combat bu mujj ba ak wër ndomb xam ne amoon na ca ba tey xëy ñëw andil ñu loolu kii di Gris Bordeaux itam ñoom ñaar seen combat ba tàngoon jër jër deret ja bëri waaye terewul Eumeu Sène da koo daan ñu ne déet na waaye yemu ca de mook Lac de Guiers numéro tamit mooy mbër mi nga xam ne moo njëkk a daan Lac de Guiers numéro moom Eumeu Sène loolu la def kii di Bombardier tamit Eumeu Sène a ko daan ci Léopold Senghor nangu couronne roi des arènes ba yóbbu ko Pikine moo tax yëglikaay bi jàpp ne daal Eumeu Sène ak roi des arènes yi moom ala ku ci ne am na fu mu jaar ak yow te ba mu fa jaar ak yow ba pare la nga gis neexu la yëglikaay bii di record a xëy ñëw tey defal ñu boobu gëstu beneen doomi Pikine na ngi boo xam ne moom l'an 2000 boo xoolee li nga xam ne moo di carrière am lambam wala boog li nga xam ne ni daal mooy ab taxawaayam ci lamb ji lu baax la waaye problème ba mu am daal mooy problème mu combat ngir bëre record a xëy ñëw tey toppal ñu l'an 2000 mu ngi ci 13 victoire ak 3 défaites boo bëggee dëgg dégg waaye komba daal moo ko të record a xëy ñëw andil ñu loolu ñeneen ñoo xam ne ni moom am nañu combat yëglikaay bi ñëw na ci ñoom muy guy gi ak rëg-rëg guy gi nag moom ñibbisi na Sénégal samedi ji nga xam ne moom la ñu génn waaye problème ba nag ki nga xam ne moo di record da caa ñëw ndax na ne da leen daf ñoo xam ne daal dëkk ba nga xam ne moo di gay njaay ñaari mbër yii guy gi ak dañ faa bokk sëriñ boo xam ne fi mu nekk nii xëccoo ba tar na lool ku ci ne yaa nga naan man la waa ji man la àndal àndul ak yow mu mel ni kon daal diggante rëg-rëg ak guy gi moom loo ci mën a dégg yàgg maar boo sàgganee mystique dana ja saf sap ndax nag dem nañu ba gay njaay ci li ñu record wax di fa xëccoo ab maara

papier commentaire daal gëstu ne Ama Baldé daal waa Pikine nañ ko wàccu bon français daal Ama vomi par Pikine nañ daal euh, décès Jules Baldé pointé du doigt lynché sur les réseaux sociaux Ama Baldé daal nekk na biir Pikine daal neexul daal Babacar waaw waaw loolu daal dama naan man li ma si mën a wax daal mooy euh, Ama Baldé moom doome Pikine la baayam Pikine la dëkk mu juddoo Pikine yaroo Pikine kon Pikine la bokk kon yaakaar naa waa Pikine wàccu Ama Baldé man Babacar du ma mën a gëm loolu parce li tax mooy Ama dafa nekk mbër mi nga xam ne am na lu mu fu mu yóbbu tey lambi Pikine yaa ngi dégg bu ñëwee nag si desewu Sil Baldé Junior Sil Baldé Junior yàlla sunu borom bi ko bindoon bindu ñun ñëpp ñu yem bakkan ca yàlla moom moo ñëw ak i ndogalam ak indi feebar boo xam ne fajes na ko ba jugal avion faje ko ba Tunisie mais yàlla ne lii moo koy yóbbu ba loolu moo ko mujj yóbbu loolu pour man Ama Baldé mënu ca dara ku dul Ama Baldé mënu ca dara kon li am solo mooy nañu rafetal wax ji gis nga àddina nit ñi il faut que ñuy jël lu rafet di ko indi te bàyyi waxante yu ñaaw yi su suñu ñi nga xam ne dañoo faatu nit bu fee nit yor nañu milliards faatu fan yi ay ñaata kilifa fi jóge bu doon xaalis leen di faj est que Babacar Babacar Touré si dina faju dana faatu Mansour Kama kële euh, góorangom bu bu xel kom baas. nag Pikine nañu dem fi nga xam ne moom mooy Géejawaay waalo ñoom nag nee lañu euh, sunu laam ginnaaw bu defee nag seen bilan am nañu 7 victoires 5 défaites neeñ daal. wàllu assuré le minimum maanaam yéegu nu wàcc nu Lac de Guiers moom dafa raté ki nga xam mooy Modou Lo Abdou Diouf moom mooy chômeur de luxe la moom day chômé euh, boobu ba léegi bi mu daanee ki nga xam ne mu jógee si defetam bu mu jógee euh, saison blanche am Alioune Seye 2 montre un visage décevant devant ñàkk jëriñu maanaam seen combat bi la kon daal xaw nañoo tane parce que sept victoire moom au moins maanaam seeni victoire fexe nañu ba mu ëpp seen ay défaite donte combat yi sax bëriwul waaw mu mel ne Lac de moom am na lu ko rëcc yaa ngi dégg maanaam parce que dafa dafa année balance ki ci des mooy Abdou Diouf ak jëloon na avance Gris 2 mais bëri ak promoteur bu ñu jëy seen loolu moo fa am Alioune Seye itam defe naa ne ku ne koomam ak ñàkk jëriñu daaw xaar ba bari woon na trop waaye gis nga fa mujjee ah ay coow am ca jàppante ba mu jëlee ca blessure ba combat ba mënatu koo yeggali muy loo xam ne tamit euh, dal ne Gris wala benn majji maaj bi nga xam ne dafa ñàkk combat par kaw waaye am na ay xale yoo xam ne xale yu mel ne ay Baye Mandiaye xam nga ay match ak yeneen xale yoo xam ne daal ñu nga fa di jéem a assurer relève bi mel ni kon daal liggéeyaat rek moo fi des quoi parce que saison bi moom bi mu taxawee dafa taxawal lu bare bare bare xay na bu ñu continuer woon mën na am combat yi ëpp nii victoire yi ëpp nii <laughs> beneen combat bi nga xam nag Pape Thialis Faye patron Leewtoo production euh, euh, patron Leewtoo production annoncé woon na ko di diggante Garga ak ki nga xam ne mooy Sa Thiès waa kër nag Garga Mbossé ñoom nag noo géntee nag neen daan euh, cadre euh, contrat bu mu signé woon ak waa Leewtoo ñoom mujj nañ ko xotti maanaam kàddu yu joxalante woon maanaam ay euh, contrat de de moralité ay kàddu daal li ñu waxoon Pape Thiès fe d'accord nañu bëreeg yow finalement nag bu ñu toogee ay semaine nag ba léegi gis nu xaas bi ñoom neen nañu ñu ngi seeti leneen daal Thiès tamit seeti leneen waaw loolu daal li ci am solo mooy kani daal mbër la mu nga xam ne day bëri muy Garga Mbossé sama staff Pape Thialis Faye yore structure am bu ñuy wax Leewtoo production annoncé woon ne combat Garga ak Sa Thiès taxawal na ko bu fekkee ne da koo annoncé woon ci kaddu yoo xam ne da ko waxante ak ñoom joxoon leenu date boo xam ne bu ñu jegee dana leen jox xaalis ah te xëy na date ba yegg si xamuñu nag parce que ñoom ñoo xam ñoom ñi ko seq bu fekkee dañu yegg ca date ba de loola amul ñoom bu leen neexee comme si ñëwuñu dara binduñu fenn encaissé wuñu dara am nañ droit kat ne kon seen xaar yàgg na kon ñoom dañuy wëri leneen ñoom loolu xëy na noona moo waral mbir moomu am li am solo nag mooy mooy ay kàddu moom man damay faral di wax ne man Babacar li ma bind ak yow ci kay li ma lax nga dégg ko mu génn sama làmmiñ jëm ci sab nopp nga dégg ko moom laa gën a fonk parce que kàddu dafa fort nit ki li ngay wax rek na ko assumer waaye sëñ Cheikh Mbacke nag gaynde Fatma dégg naa ko nit daal lépp looy wax rek na nga fexe nar ko ci lu mu mën a doon nag parce que moo lay dimbali dimbali ko nga ko seqal mhm. mhm. suñ jógee nag foofu nag dañuy dem euh, euh, na bees parce que léegi désormais ku am victoire day compter 3 points ki nga xam ne mooy nul moom euh, benn point lay compter mooy règlement bi. waaw mu mel ni kon daal tey noonu la ñu fas yéenee joxe déwén sunu lamb door bi waa wala waa sunu lamb. Mm. muy loo xam ne daal seen initiative boobu daal li may def man mooy di leen ci ñaanal yàlla parce que tax na tey écrit di gën a góorgóorlu jongante bi di gën a métti loolu tamit am na ci solo parce que ki niil ah war di gën a gis ay yoon di gën a gis ay voies yoo xam ne nii boo ci jaar di nga ko mën a améliorer ba mu gën baax quoi suñ jógee nag suñu laam dañuy dem ah, fi nga xam ne moom mooy record record nag foofu ne nañ ah, Eumeu Sène lañ def daal benn papier benn taxaw jàngat nee ñu daal moom daal moom mooy yarkat ñi nga xam ne moom mooy VIP yi maanaam ah, VIP bu ñëw rek Eumeu defal la bagage si mel ni Balla Gris 2 Lac de ak ki nga xam ne moom mooy Bombardier waaw ñoo ñoom ñëpp ku ne def naa Balla gay 2 mook Eumeu Sène seen i combat ku ne gis na fa muy na muy demee ak itam Eumeu daan Balla ñaari yoon mook ki nga xam ne moom mooy Gris boobu tamit bëri nañ ñaari yoon mu daan giri Gris daan ko mu ñëw fayu daanaat ko ci revanche bu méttee métti daan ki nga xam ne mooy Lac de Guiers kon yaakaar naa ah daa mel ni roi mbër yu mag yi wala VIP yi moom tey dama ëma seen am na ci ay ndam yoo xam boo xam ne nii 2000 am na solo loolu mooy taxawaayu en 2000 ñoom daal lañu gis nañu daal day daan maanaam 13 succès la am si 16 combats day daan mais problème bi mooy mënul fexe ba am ay combat mooy performance mais chômeur muy la xaw a na mm-hmm. a mag a a mag bokk ci làmb ji te ba pare mu am problème mu am combat loolu nag xaw ma staff la ma mbër yi mu war a bëreel la xaw ma promoteur yi la waaye lu ci mën a doon nekk na situation boo xam ne bu jara lijjanti la parce que dafa war di bëre parce que dafa bokk ci làmb ji moom en 2000 situation moom xam ne dañuy def blitz simple boole ko lutte frappe ku si mel ni pakala problème boobu amoon na ko ku si mel ni rëg-rëg problème boobu da ba si forza ñoom ba si assurance ñoom ñëpp dañu am problème daal pour mën a am euh, combat si bëre dóor bi waaw jafe-jafe jafe comme nu nga ko lim yi gi ni demoon na ba benn moment sax daf doon nangoo sax wàññi xaalisam mm. pour di bëree

ay ay sëriñ muy euh, rëg-rëg ak guy gi combat boobu moom taxaw na waaye boobu ba léegi ñu ngi si ay coow nee ñu nag fee si gànjaay ñoom daal yi nga xëccoo benn sëriñ entre guy gi ak ki nga xam ni muy lu doy waar ah waaw loolu moom ci làmb yàgg na ci làmb parce que làmb moom lu nekk ci am parce que làmb daa ànd ak ñaan waaw moo tax ba nga xam ne daal ah xëccoo nag moom du ko jar parce kay ñaan moom te di kilifa ñoom ñu koy fekk si moom mooy xool kam ci choisir rek ki nga xam ni yibis nañu fi nga xam ne moom mooy Sénégal samedi bi ginnaaw bu defee ay weer yu yàgg foofu si États-Unis états loolu am na solo ñibbisi pour waajal boppam nekk si combat am defe naa ne ah jot na parce que combat bi taxaw na ñu ciy félicité waat waa GFM muy combat boo xam ne daal entente yi bëri na wax ji tamit bëri na ci waaye lu ci waaye lépp lu mu mën a doon daal nañu bàyyi xel na ñaari mbër yu bëri ñaari mbëgg yu ñaari mbër yu bëgg dara xale boo xam ne muy rëg-rëg ambition la am boobu ba tey mu ngi def parcours bu nga xam ne sans faute di wane lu leer nañ na ko ne du favori ci combat wala dañ koy daan mu ñëw génn ci fu doy doy waar waaw indi surprise moo tax nga nekk combat boo xam ne daal ah tey ci baax na. muy Gouye Gui ak Reug Reug. Babacar ñu jeexale nag ak Leewtoo TV foofu na ni ngi dalal ki nga xam ne mooy Balla Diouf foofu na mi ngi def analyse ay combat diggante ki nga xam ne mooy Reug Reug ak Gouye Gui lu mën a xew jàpp na ne Reug Reug daa jàpp ne mooy daan Gouye Gui mm. loolu nag. xam gis-gisam la te itam analyse il faut ñu bàyyi nit ñi di joxe seen ay analyse nit ki li mu gis en tant que ku xam ci li muy ci mbir dara suñ ko laajee am na droit génne loolu Balla loolu la def tekkiwul nag ne la mu wax mooy li war a am déedéet mais la mu gis la wax la mm. ca des nag ci ñaari mbëree parce que reconnaître na ne guy gi mbër mu na ni rëg-rëg moo ëpp compétition li muy bëre nangam nangam te a xew jàpp nga xam ne mooy rëg-rëg waaye loolu nag tekkiwul ne mooy daan parce bésu daan ba buñ ca yeggee ca la ñuy kan mooy daan incha allah yàlla nañ ko fekkete tal ko amin Babacar si kàddu yoon leen tàggoon la yax di dajee suba incha allah balaa ba may nuyu sama yaay mais su nuyu sama doom Mouhamed Diouf di astaan ne DG Bramba Chéri Khadija Diallo nuyu euh, ki nga xam ne mooy Asek Chéri Khoudia Seck Abdou Gueye depuis États-Unis Baye Fall yaa ngi si biir ni ki nga xam ne mooy Jumbori euh, Mbooc ak ki nga xam ne mooy Soukeyni Dieng depuis Mauritanie ñoom ñëpp maa nuyu di nuyu samay doom Mame Diarra Penda Rokhaya Grand Fall ak ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmed Tidiane Tandine depuis Thiès a foo mën a nekk si àddina bi rek ñu ngi lay ziar di la ñaanal jàmm tey nag dinaa nuyu ku nga xam ne nii moom mooy madame Hébert ca Lagros maa ngi koy nuyu série Patrice Hébert maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal jàmm wax di ko wax ne yow moom ah Euh, soppe nga fii nga xam ne nii mooy ci li ñuy def ñun tamit noonu nga ñuy soppe noonu lañ soppe madame Hébert maa ngi lay béggee bu baax a baax di nuyu waa Lacrosse yëpp mais di nuyu tamit ñi nga xam ne nii ñu ngi ñuy suivre fu ñu mën a ne di jaalewaat suma benn xarit bi ñuy wax Ndongo Fall nekk ca Italie magam bi ñuy wax Bounama Fall nekkoon directeur stade Elimanel Fall génn àddina fan yële ñu génn kon Ndongo Fall maa ngi koy nuyu depuis Italie Abib Ndoy tamit États-Unis moom tamit di suma nit maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax ndax ku tax nga xam sawaay rek kooku sawaay la te Abib Ndoy sama xam ci Youssou Ndoy ci moom la jógee ñoom ñaar ñu di ay doomu ndey ma koy ñaanal moom Abib Habib ci seet bu bees bi mu takk fan yi di rakku seen basketteuse yàlla na ko ci yàlla defal ndam ak njaboot gu am barke barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di nuyu képp ku ñuy suivre rek waa Petersen nag du ma leen mës a fàtte ñoom Cheikh Lambaye Babacar bu Mout Lama Jib Sène ak ki nga xam ne mooy Mor Diouf Petersen ak Petersen yëpp commerçant yaak ña fa nekk di yëngu tépp yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm barke nabil Moustapha sallallahu alayhi wasallam